Fafa TV. Aztec American Technology ànd ak distributeur agréé bii nga xam ni moom moo di Aven Electronics. waaw DJ Boubs ñëw fii ci Louga ak li ko wër. indi leen promotion spéciale ci seen produit yëpp mës nga gis lii ci produit Aztec yëpp waaw suñu Smart TV curve dernière génération ngeen mën a seetaan série yi nga xam ni moom moo nekk ci YouTube bi yëpp. DJ Boubs établissement Mbargu Seynabou Lo nekk ci garage Ñomre jàkkaarloog juma Maam Malick Sall. ñëw leen xool 24 pouces 32 pouces 43 50 ba 55 pouces ëpp na waay ci ay njëg yoo xam ni nag. établissement Mbërgu bu Lo nekk fi nga xamante ni mooy garage su ñoom rek jàkkaarloog juma maam Malick Sall nekk fii ci Louga. foofu rek ngeen ko mën a amee. seen numéro téléphone nekk 77 424 68 41 ñu ngi leen fay xaare ak ay xéewal yi jàppandi. ku dolli cere yokk ñeex Aztec indil na leen ay mixeur yu xarañ ay split dernière génération tamit indi nañ ko technologie indil na leen ay ventilateur yu àndandoo ak télécommande ay chauffe-eau ngir sangu te seddaay bi du la indi benn problème ci ay njëkk yu yomb ak Aztec technologie mën ngeen installer seen kër chauffe-eau cuisinière Aztec 4 feux 5 feux yu ànd ak tourne brochette ñaw Aztec ñëw na ba noppi indi ay micro-ondes yu rafet ay congélateur yoo xam ni loo ci dugal mu congelé gaaw gaaw gaaw ba noppi durée de vie bi yàgg lool ñëw leen rek. établissement Mbargu Seynabu la nekk sa garage ñoom rek fi jàkkaarloog juma maam Malick Sall. woo ñu 77. 424 68 41 DJ Boops Aztec Live to the future ñu ko peese ñu ne mu mhm. waaye nag balaas ba am na lu muy xamal muy lan fii ngeen dugg si kat dëgg ak ku ko mën a yor daañ la ko jox ba nga xam ne yow yaa moom dëgg fii balance la waaye safaanub dëgg itam muy lan tooñaange ak ku fa mën a indi tooñaange moom balance boobu la lay tekki daañu la ko jox ndax yaa tooñ ñu ne ah kon balance boobu loolu lay firi ñu ne waaw balance boobu loolu lay firi ma joxe benn misaal bu gàtt balance bi suñ ko tegee natt ci benn kilo pour xale bi benn kilo pour mag mi benn kilo pour jigéen ji benn kilo pour góor gi benn kilo pour sëriñ bi benn kilo pour président bi walla ministre bi ndax kilo yooyu dinañ ëppante bi mu ne gindeet xool leen ñu xam ne xaw naa tiit ñoom ñoo ne ko laa xaf bu ragal bul tiit xasmaan yi ñii fi teew kan ñaari gaay la yuy xuloo xuloo la bagaa baaduna ala baadin xuloo bi nag ñenn ci ñun ñoo bëgg a beew ca kaw ñi ca des xam nga ñoom li ñuy waxagum jaar na yoon dafa am ñenn ci ñun ñu tooñ ñi ca des fahkum naa bil xaq loolu it jaar na yoon àttee ñu ci dëgg wala tostit bu jeng de mënoon ne waaw nit nooy ñëwee ci moom di këlif en tant que fekk ci këlifa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 Eh, yàlla boole ñu min ahlil quraanil karim ahlillahi wa xaasati tey ñu ngi fas yéene jàng saar bu ñuy tuddee suuratu suuratul qaaria baatub alqaariatu aw tur la bu bokk ci turi bis penc yi comme ni alquraan di waxee assaaxatu muy firi bis penc ngir lan yuuxu gu fay jib wala mu ne attaamatu muy firi bis ngir lan mbir yu rëy euh, yu fay xew walla lu mel ni ki alxaashiyatu muy firi njàqare goo xam ne dana ñëw ba muur xoli jaam ña ak yeneen tur yu dul yooyu kon àllaaxira dafa bari ay tur suñu waxee alqaariatu mu ngi bàyyi ko ci qaraa ji firi fëgg na kom qaraa al baaba fëgg na bunt ba àllaaxira buy ñëw day ànd ak yëngu-yëngu bu mag bu raglu boo xam ne day fëgg nopp ya moo tax suñ suñ borom tuddee ko fii alqaariatu bi maanaa xew-xew ba di aji fëgg nopp ya ñu ñëw nag ci baat beeg boppam dañ koo def mufrat muy alqaariatu mu nekk mubtada it boo xam ne gisaluñ ko xabar gisaluñ ko it fu ñuy wax ne fii mooy sifa siñ koy melalee kon alquran day waxee noonu jékkee jékki rek wax benn baat mu nekk benn mubtada te doo ko xabar ñu ne déet waaye mu teg ci ab laajte bu ñuy tuddee su alu tahwil su mooy laajte boo xam ne dafay dafay tiital ka koy déglu waaye it day wan ki koy déglu nekko mbir mu raglu mbir mu raglu lanuy bëgg a wax si waaye it day wan ki koy déglu ne ko bàyyil xel liñ lay bëgg a waxal ndax liñ lay laaj tontu bi nekkul fi yow waaw saa yu ngeen gisee mu laajtee laajte mu mel nii rek xamal ne la muy laaj yorut tontu ba la muy laaj yorut tontu ba bu boobaa nag tontu ba ngeen baal ma de ci lim mu wax xam na xale bi laa wax ma ne la muy laaj yow miñ koy laaj yoroo tontu la waaw yoroo tontu la bi maanaa doonut loo mën a xamal sa bopp moo tax ñu laaj la ko pour nga teel a nangu sag ñàkk xam ci loolu ñu lay laaj bu ko defee loolu dana tax nga bàyyi xel li nu lay laaj bu ñu la koy waxal mu mën a placer moo tax mu ne alqaariatu yuuxu ga nga xam ne aji fëgg la euh, noppi jaam ña ak xoli jaam ña ma mal qaariatu yuuxu googu mooy lan xam nga ñun yuuxu rek lañ ci xamoon qaraa fëgg yuuxu waaye nañ déglu suñ borom subhanahu wa taala mu waxal ñu lan mooy alqaaria moo tax bi mu laajtee daf ne wama ana man mbir mu màgg adraka moo la xamal maa ana lan alqaariatu mooy yuuxu googu nga xam ne bu ñëwee dana fëgg noppi jaam ña ngir mbetteel ak doole jum am kon ñun fëgg giñ ci xamoon tey maana meneen mu bees mooy ñëw moo tax suñ borom ne alqaariatu fii nag ah, yawma bis la boo xam ne yakunu dana nekk annaasu nit ña annaasu nit ña kal mel ni ki ay luppalupp luppalupp ay rab yu ndaw la yu yori laaf jamonoy nawet nii da ngeen koy gis du yàgg dara ñu commencé feeñ yor ay couleur yu wuute ñi yu weex yu xonq xam nga lu pàllup yi ñaare bu ñuy feeñ dangay xool ñu fees dell jaww ji waaye itam da ngay xool ne lu pàllup yi amuñu benn direction amuñ jëmuwaay da ngay gis kii naaw jëm nii kii naaw jëm nii kii naaw jëm nii kii naaw jëm nii noonu nga leen di gisee ñuy wër rek loolu dafa yor melokaanu ku jaaxle doomu aadama yi it keroog noonu la def bu ñu génnee ci seeni bàmmeel dañuy bëri lool ba mel nii lu palup ndax ñu njëkk ña ak ñu mujj ña ñëpp ay génn te jamono bii nu toll yaakaar naa lu mat juróom-ñaari téeméeri milliards yi doomu aadamaa ngi dund ci kaw suuf kon nag ñaata milliards a nekk ci biir suuf kenn xamul ndam toll ñaata milliards ñooy ñëwaat feeg ba àddunay tukkee kenn xamul nañ toll yàlla rek ko xam subhanahu wa kon ñooñu ñëpp bu ñu tasee di ay milliards yu bari ci men mennum pénc ñu tase fa ci anam goo xam ne gu gu raglu la ndax nda mbir may taxawee ña gëmoon ñoom seen xel dana dal ndax danay ne ah bis bii day mooy bañ ñu doon dig dañ koy waxante sax ci seen bi da nga gis ku naan haada yawmukum bis bii mooy seen bis ba yawmukum allazi kuntum tuwaadun bis bañ leen doon dig moo nekk nii kon ñooñu ñoom bàyyi woon nañ xel bis ba ne day am bu nu xoolee nag ñu bëri ñu bari ci doomu aadama yi tey dañu ne bis boobu amul moo tax tiitaange ga ak njàqare wa ca ñooña lay gën a amee doole ndax leer na leen ne am na keroog ba ñuy dee lañ ko commencé gëm keroog lañ leen di wan yañ doon weddi bu ko defee nag bis bii doon leen xaar ker bu agsee fa ñoom dañuy xam ne kon kat bis bis bis bii tey mooy yawmul fasli bis bi ñuy teqale jaam ñi waaw bis bi ñuy teqale jaam ñi keroog la yaay di teqalikoog doomam doom teqalikoog yaayam kook baayam xarit teqalikoog xaritam bam jeex ndax da gis baay ñu yóbbu ko ci kër gu ñuy tuddee aljanna wala doom ñu yóbbu ko ci kër gu ñuy tuddee aljanna ka ca des ñu yóbbu ko ci geneen kër gu ñuy tuddee annaar yal nañ ci yàlla musal moo tax ñu koy tuddee yowmul fasli kon keroog doom aadama ya nañ bëri lool ñu njëkk ñu mujj ña ñëppay daje kalfarage mel ni kii lan ay lupalup suus lupalup ya di yu ñu wisaare yu ñu tasaare wisaare leen noonu ñuy bare noona nu ko raw nu ko raw la doom aadama yi di bëree keroog yowmal qiyaama mhm. te it wa dana nekk aljibaalu doj ya kal ihni mel ni kënt kënt mooy wëttéen wëttéen lu nooy la wëttéen lu nooy la aha lu nooy la yaakaar naa ñu bari ci yéen xam nañu wëttéen mooy leen ñi dem ci barab yiñ koy bayee ñoom xam nañ ko ci lañuy ràbbu yére yi mhm. da ngeen gis ay coton ay paquet yi coton yu nuy jaay di ko di ko def ci di ko fompee barab yoo xam ne dafa dagg ci doomu aadama coton boobu du gis ngeen ko ni mel ci nooyaay montagne yi noonu lañuy ñuy mer keroog yowmal xiyaama wala montagne ni mu dëgëree lan moo koy ñëw mokkal ko toj ko dëbb ko bam mu nooy ba mel ni coton loolu mbir mu màgg la mbirum suñu borom la subhanahu wa hmm. kon moo lay xamal ne jalab-jalab ja dana bari lool dana rëy lool dana màgg lool hmm. wa takun dana nekk aljibaalu doj ya muy montagne ya kal ihni mel ni ki leen waaye da ngeen naan kënt wolof kënt lay wax wala wëttéen wëttéen almanfuush wadi wu ñu wulli tëcc ko wëttéen dañ koy wulli di ko tëcc la muy nooy nooy pour gën koo nooyal ba mën caa génnee ay wëñ noonu wëttéen wu ñu wulli di nooyee montagne yu dëgër yi noona lay nooyee la koy nooyal lan la ma doole jooju doole doole kan la loola mooy doole allah subhanahu wa taala a ah, ñu ne kon alqaariatu lii lay firi ndax loolu araab yi xamoon nañ ko déedéet arab yi ñam lu ñu xamoon rek buñ ne qaraa fëgg na alqaariatu aji fëgg ja waaye alqaariatu yu ñëw di teet ci bis boo xam ne ñu njëkk ñaag ñu mujj ñu ñëppay dajaloo bari lool ba mel ni ay luppa lupp yuñ wisaare ñu ne déetawaay doole ju rëy ñëw tëj ci ya doj yu rëy ya tëj ci leen bañ nooy ba mel ni kënt maana moomu maana mu bees la ci baatub alqaariyaatu moo taxoon ñu waxoon ne saa yoo gisee laajte bi ñuy tuddee laajte tahwiil xamal ne tontu la nekkul fi yow mi ñu koy laaj waaw tontu la yoroo ko ndax tontu la dafa sut xam-xamu doom aadama tontu la it dafa sut ni doom aadama di mën a ceeñeer loo ay mbir ba am ca xam-xam hmm, tontu la dafa sut loolu moo tax gis nga bi suñ borom tontoo rek xam nañ ne lii day moom rek a ko mën a tontu ndax moom rek ko xam kon bis baa ngoog xaari atu jooju nag muy liy fëgg adduna bi lépp ci genn yuuxu gu mag mooy tëj ci montagne yi yëpp moo leen di mokkal rupp ma lay mokkal montagne dana bàyyi leneenam ngoog mbirum suñ borom a ngoog subhanahu wa ñu ne kon hada huwa al mashhadu al awwal lii kat benn wàll la ci alqaariatu des na yeneen yeneen mbir ngi ñëw benn mashhada ngoog muy al mashhadu al awwal lil qaaria muy premier phénomène ci baat bii ñuy tuddee alqaariatu muy phénomène mooy feeñuwaay mashhad feeñuwaay fii lii fi feeñagum mooy li leen waxoon léegi ci gannaaw bis boo xam ne nit ña daañu bëri ba mel ni ay lan ay luppalupp yu nu wisaare doj ya daañu daanu mokk rupp nooy nepp ba mel ni coton wala nga ne kënt wala nga ne leen wala nga ne wëttéen ñu ne ah, kon loolu mooy al mashhadul awwal moo tax nag lay toj doj ya mokkal ko rupp yuuxu googa mooy bëttu xol ya dugal fa ragal goo xam ne keroog doomu aadama dana tiit tiitaange goo xam ne mosu koo tiit ndax yuuxu gu noonu mosu koo dégg xaacu gu mel noonu ñëw fëgg ay noppam fëgg ab xolam xaacu gu noonu doomu aadama mosu koo dégg moo tax cër yi yëpp ay àndandoor moom doom doomu aadama keroog di lox gis nga am na benn euh, laaya bu koy wax lox gi moom it fu ko wax yow ma tarjufu raajifatu tatba'uha raadifatu mu ngoog loolu kon tiitaange la goo xam ne moom lañuy tuddee tiitaange gu mag ga moo tax nag doomu aadama yi di tëb di daw di rombante ñii jël ndeyjoor ñii jël càmmooy ñii jël gannaaw ñii jël kanam ndax amatuñ direction fi mu ne tiitaange la ñuy daw hmm. foofu la doomu aadama yi xoolee li ko waroon lépp mu nekk lan xabaan mansuuran nekk pënd lépp nooy nepp lépp nekkaat benn dënd génd bu tàlli laa tara fiha iwajan wala amtan suñ borom nee na keroog du ngeen gis ci suuf lu ñuy tuddee xóot-xóot waaye du ngeen ci gis itam dongo waaw iwajan wala amtan du ngeen gis ci suuf si fenn fu xóot du ngeen gis fenn fu yëkkatiku lépp ay àndandoor la def lan maase ñu ñëw nag ci beneen mashad mashad bii danañ ci yàgg moom bi bi ñu jub nii dana jël tuuti ay minutes bu soobee yàlla ndax dafa am solo ñu bàyyi ko xel bu baax ndax boo ko bàyyee xel yow doomu aadama bi ah da rafetal sa àdduna da nga rafetal say jëf da nga rafetal say wax danga nga rafetal say xalaat danga nga rafetal say jëflante danga nga rafetal say melokaan muy muy lii nuy bëgg a wax ndax lépp luñ jëf kat ndeke mbaa ñu wax ko lépp luñ jëf mbaa ñu wax ko mbaa ñu melowoo ko suñ borom da koy da koy jëmmal waa da koy jëmmal quantifier ko ñu mën a xam quantité bi nu mu bu dee wax ju rafet dañuy xam quantité bi nu mu bu dee wax bu ñaaw dañuy xam jal ba nam toll jalu bu wax ñaaw ja eh nam walbatiku wëlbatikul ah, moo tax suñ borom subhanahu wa taala wax ak ñun ci laaye bii di ñëw mu ne fa amma man ndaal jaam ba nga xam ne saqulat diis na mawaasiinuhu ay peesey jëfam yu baax jëf yu baax ya dañoo diis mawaasiin jamu la maanaam baat la boo xam ne dafay wax lu bari jamu mooy mbooloo mufrad ma lan la misaan misaan mhm. ñun nag misaan liñ ci xamoon mu mën ko daan euh, mu daan liñ xamoon ne balance da koy peser lañ ci xamoon du ay wax lañ ci xamoon du ay jëf ñun liñ xamoon ci luñ mën a peser ay objet matériel la daan doon comme piis bi tapis bi ak suuf seeg li ci kawam ak li ci biiram yooyu moom mënees na leen peese waaye wax ñu koy peese loolu ñun miinuñ ko woon mhm. waaw ndax wax mbirum maana la waaye nag dem nañ ba xam-xam wane ne ah kay wax dañ koy peese de wax lu ñu mën a quantifier la de ñun ñoo ko mën a gudd waaye xam-xam moom xam na ne wax dafa yor poids jëf itam calorie yi koy yëkkati jëf joo mën a jëf calorie ya mënees na koo peser yow yaa xamul nu ñu koy peser waaye suñ borom subhaanahu wa taala xam na ko hmm. kon wax benn benn énergie la benn ay calories yu bari la benn doole la boo xam ne suñ borom subhanahu wa taala ma la koy dajaleel yu baax ya ma ngi ko dajale ndax lii lii alimenté jëmmi doomu aadama ba mu mën a dox loolu doole la poids lii alimenté jëmmi doomu aadama ba mën a wax euh, loolu poids la loolu ma kenn sikki sakkatu ci yooyu yëpp nag suñ borom daf ñu koy dajaleel wax ya jëf ya melo ya jëflante ya ba yowmal qiyaama ñu ne la ah jal bii day ci wax ju bon ju baax jal bii day ci jëf yu baax yaa ko moom mooy sa jëf yu baax ya kon ki am xel ah day bàyyi xel ay waxam di bàyyi xel ay jëfam di bàyyi xel ay jëflanteem di ko rafetal ndax lu waay jëf kat moo ko moom de ci lu rafet lu alquran wax in ahsantum ahsantum li anfusikum bu ngeen de jëf-jëf ju rafet ah yéen a ngay jëf-jëf ju rafet joo xam ne yéen ko moom ahsantum li anfusikum waaye nag wa in asatum ay bu ngeen dee jëf-jëf ju ñaaw falaha seen bakkan yee ko moom de ay fali anfusikum mu nga baax na ñu ñëwaat lu tax suñ borom tànn baatub mawazin baatub mizan muy firi balance lu waral lu waral loolu lu tax suñ borom tànn baatu balance ñu déglu ñu ne waaw ñun doom aadama yi liñ xamagum ci lu nuy nattee di ko takkee mbir takkin woo xam ne moom kenn du ko mën a tuumaal takkin woo xam ne kenn du ko mën a tuumaal lañ ca xamagum mooy balance waa la ca gën a maandu mooy balance la ca gën a maandu mooy balance moo tax sax da ngeen di gis àttekat bi bu ngeen demee ci tribunaux yi àttekat bi fi muy toog nii da ngeen xool ca kaw ne tuuti da ngeen gis benn balance ñu ñu ko fa <laughs> waaw foofa ndax ca tribunal ba àtte ya fa juge bay àtte ak wax ya nga xam ne ñay jàppantee ko xuloo moom lañ fay wax ndax dañ ko peese ca balance booba déedéet balance boobu mënu ko peese ñu ne mu ngoog mhm. waaye nag balance ba am na lum ñuy xamal muy lan fii ngeen dugg si kat dëgg ak ku ko mën a yor daañ la ko jox ba nga xam ne yow yaa moom dëgg fii balance la waaye safaanub dëgg itam muy lan tooñaange ak ku fa mën a indi tooñaange moom balance boobu la lay tekki daañ la ko jox ndax yaa tooñ ñu ne ah kon balance boobu loolu lay firi ñu ne waaw balance boobu loolu lay firi ma joxe benn misaal bu gàtt balance bi suñ ko tegee natt ci benn kilo pour xale bi benn kilo pour mag mi benn kilo pour jigéen ji benn kilo pour góor gi benn kilo pour sëriñ bi benn kilo pour président bi walla ministre bi ndax kilo yooyu dinañ ëppante ci balance bi li muy joxe ndax dana ëppante gis nga balance moom ak weñ la weñ ak weñ la weñ amul santiment amul yëg-yëg moom bi ñuy peesal xale bi xamut ne ki ñuy peesal xale la poids bi rek lay joxe moom bi ñuy peesal mag mi it xamul ne mag lay peesal moom poids bi rek lay joxe bi ñuy peesal jigéen ji noonu bi ñuy peesal góor gi noonu balance moom ak weñ la xamut euh, gisut déggut gis nga ñu taxaw ci kanamam noonu ñu ñëw ñu dee peeseel gisu ci kenn moom balance xamu ci kenn moom balance balance daal leen la xam muy lan poids bi muy joxe poids képp mu nga ngeen déglu loolu muy benn ñaareel bi ah kon yow mii toog juge bi di toog warta am sentiment sentiment kii mooy sama mbokk kii mooy sama mag kii mooy sama yaay kii mooy sama maam kii sama xarit la déedéet jugement amut loolu dangaa war a mel ni balance bi yow daal lenn rek ngay xam muy lan dëgg ak ci ko yow nga jox ko ko tooñaange ak kiñ tooñ nga teggil ko tooñaangeem ab juge noonu la war a mel moo tax ñuy def balance bi doonu ci peggam suñ borom it subhanahu wa ah noonu la ñuy nattalee ëllëg suñuy jëf ni balance bi di di ñàkk ràññetlee góor ak jigéen ku weex ak ku xonq noonu la suñ borom mel ci màndum noonu la mel ci màndum de amul diwooma jur mooy sama yaay wala diwoy sama baay ab sëriñ la woon wala ab yonentu la woon de loolu àggut foofa de fa iza nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma idin nee na bu bufte ba jibee bufte ba buñ ko wale ku doon teddee askan naan diwa jur mooy sama maam wala mooy sama baay nee na yooyu foofa la yem ci yéen ci àdduna la yem de àggut àlaxira wala yatasaaduun duñ fa toog it di laajante naan waaw sama maam kenaan sama baay déedéet yooyu amu fa de amu fa lu alquran wax foofu ci suratul mufli fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun foofa daal balance yii rek ka fay dox ku sab natt diis texe nga waaye nag yooyu wa man xafat mawazinuhu kuñ teg say jëf yu baax ci balance ba mu ñàkk solo woyof perte perte ñëwal na borom mhm. perte ñëwal na borom kon nañ leen gaawantu ci jëf-jëf yu baax bëril jëf yu baax bëril wax yu baax bëril melokaan yu baax waaye it nañ na xelu nañ xelu ndax jamono bi ngay jëf-jëf ju bon mbaa nga di ko wax yaa ngi lor sa bopp ndax kooku xelu na bi ngay jëf-jëf ju mbaa nga di ko wax mbaa nga koy jëflante ah yaa ngi gaañ sa bopp ndax bis dana ñëw ñu teg ko ca balance ba mu woyof toyoŋ maanaam say jëf yu baax woyof toyom ngeen baal ma de ci ni mu waxee sa jëf yu bon yu bëri lool diis lool wat mu ne ñooñu ñoo perte loolay perte xasiru anfusahum ñoom dañoo perte seen seen bakkan perte nañ seen bakkan ya perte nañ seen bopp fahum xasiru anfusahum lu mu ca teg fii jahannama xaaliduun yal nañ ci yàlla musal perte pire moo mooy mooy loolu ñu ñëwaat ci geneen maana ñu ngi doon wane léegi ci liñ doon wax ne yàlla subhanahu wa noonu nga gisee balance weñ gi weñ gi xàmmeewul ki nuy peesal yàlla maandum nga noonu la mel xàmmeewul doomi diw ak doomi diw mu ngoog aha ni balance bi ñàkkee bànneex ak parparloo nu ko raw nu ko raw laa la wax na suñ borom mel subhanahu wa moo tax borom xam-xam yu njëkk ya buñ leen daan jox àtte ñoom dañuy dañuy daw dañ naan déedéet ñeme wuñ ko mhm. ndax kat ñàkk péete ñàkk par parloo ba mel ni balance bii ah yombut yombut aha moo tax daan nga gis borom xam-xam bu ñu fal jox ko palte ne ko yaay kaay yaay xaad mu dem toog xelaataat ñemewu ko mu ñëw ne ko izil nii izil nii yaa amira almuminina an il qada folli ma fi ma tegoon folli ma nee nañ benn waaye mos naa ñëw ci Haroun ar Rachid ne ko yaa ma waxoon ma toog di àtte mu ne ko ah, mu ne ko folli ma folli mu ne ko ah ñun biñ lay teg sa palaas dañoo jàpp ne ko maandu nga jàpp ne ko am xam-xam nga jàpp ne tey ci dëkk bi fii ñu la teg ah ci liñ xam kenn gënut la ci am mérite mu ne ko loolu ngeen jàpp waaye amirul muminin mu ngi mel ni rek ki ñun buñ ne rutab inni uhib shaa inda annaasi anni uhibu rutab ñun xamuñu yutum yutum mooy tàndarma bu ñoree noonu bay commencé di génn ci verte verte bi meloon jëm ci mboq mboq foofu melokaanu tàndarma fi foofu mu tolloo foofu dafa am ñoo xam ne dañ koy bëgg moom waa jii nag da cee bokkoon mu ne dafa am ñaar ñu ñëw ci man kenn ku nekk kalaame morom ma ma ne leen dem leen ba bis sàngam ngeen ñëw wuy si ma mu jox leen bisub daje pour ñu àtte leen nee na laata bisub daje bi ñëw ci bis yi ci diggante bi am guddi rek am ku fëgg sama buntu kër ma ne ko ki ma doon liggéeyal moom la tuddee xaadim xaadim mooy firi kii lay liggéeyal nga di ko fay olof da koy wax mbindaan ma ne ko génnal nga dem seet kiy fëgg mu ne xaadim bi dem dellusi si indi benn cëggu tàndarma ju ju toll foofu ñuy tuddee itum rutab ma laaj ko ne waaw lii ku ku la ko jox mu ne ko ah benn waay la de mu ne ko waaje nu mel mu wax ko na mel mu ne ah ci ci ñi war a ñëw ci sama kanam gannaaw maa ngi bis yii di ñëw la pour ma war leen a àtte mu ne ko jëlaatal mu jël ko mu ne ko dawal nga dem ko delloo ko xam nga kon jëlut lañ ko jox mu ngoog mu ngoog nee na delloo naa ko ko mu dem waaye ba bis ba jotee ñoom ñaar ñu ñëw taxaw ci sama kanam nee na am naa yëg-yëgu ne kii kat mooy ka ñëwoon doon ma jox yutum ja ba loola xaw naa def ci sama bakkan bi yëg-yëgu féetee moom pour far farle ko yëg-yëg booba rek yëg-yëg booba moo ko tiital moo tax ma ñëw ne dama bëgg nga folli ma ndax àtte yombut dama bëgg nga folli ma ndax àtte yombut waaye ñii dañ doon bàyyi xel alqaaria bis bii lañ doon bàyyi xel alqaaria waaw bis boo xam ne bu ñëwee jëf ya wax ya yépp la ñuy peese mhm. mu ne waaw man jëluma lam ma joxoon mu yutum ba waaye sama xool xaw naa ci jëm ci farle ko ma suma ko jëloon nag loolay laaj bi loolay laaj eh, amirul muminin mu ne ko amirul man jëluma lam ma joxoon te sama xol xaw naa màcc jëm ci moom ma su ma ko jëloon nag nu muy mel mhm. wallaay ndeysaan ah, kon gis nga masalatul xukmi wa masalatul qada masalatun daqiqatun jiddan mhm. masala mu sew la yombut moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu xulookat yi teewaan ci kanamam mu war leen a àtte daan na wax ne ayyuha nnaas innakum taxtasimuuna ilayya wa laalla baadakum alxana bi xujjatihi min baad fa man qadaytu lahu bi xaqi axihi cheyan bi qawlihi fa innama aqtau lahu qitaatan min annaar fala yaxudha loolu mooy lan ci wolof mu ne ay nit ñi yéen ñi xuloo ah yéen a ngi teew ci sama kanam de kenn ku nekk indi ay waxam teg ci sama kanam kenn ku nekk nag na muy gaaralee ay waxam gaaral mooy na muy exposé ay waxam kenn ci yéen na muy exposé ay waxam mën naa gën a éloquent na morom ma di exposé ay waxam bi ma naa kii mën naa dàqa wax kii mën naa am sax ki dàqa wax moo nekkut ci dëgg waaye nag moo dàqa wax ndax da gis même gune yi sax boo toogee ci sa kanam kenn ku nekk buy wax day jéem a rafetal la muy wax pour lan ñu ne ko yaa wax dëgg de gune yi demagul fenn sax dañ koy dañ koy xam ñaare di jéem a rafetal na muy wax ak la muy wax pour ñu ne ko yaa yaa am dëgg de loolu nag la yonent daan wax sallallahu alayhi wasallam daan na leen wax ne bu ngeen teewee ci sama kanam kenn ku nekk di wax di exposé la muy wax mën naa am kenn ka gën a ñaw ka ca des ca na muy waxee ba ma àtteel ko lu dul dëgg maanaam ba ma sukkandiku ca lam wax jox ko lu dul àqam mu ne waaye na ko wér ne ba jëfandikoo aw làmmiñam ba ma jàpp ne moo am dëgg tax ma jox ko dëgg te amul dëgg dëgg googa ma ko jox aw daggitu safara la de dañ ko dégg ñun ñëpp aw daggitu safara la de nga taxaw yaa sa moroom ngeen taxaw wax nga dàqu koo wax te xam nga ne yaa tooñ xam nga ne sa moroom mii moo am dëgg waaye yaa ko dàq wax fexe nga rek ba saw lay not aw layam ne la yaa am dëgg saan borom dëgg ga wàññeeku ak xol bu naqari waaw ndax lan tooñ nañ ko ca biti ñëwaat nañ ci kanam ki àtte ëpp kaw làmmiñ ba tax ñu jël ak xam jox ko ki nga xam ne moo ko tooñoon ca biti di bi mu am naqar ñaari yoon naqar woo yàlla dana ko seetaan <laughs> yàlla du ko seetaan de moo tax nit ki am xel day wax dëgg donte bu ko waxee day dee na wax dëgg lii nag dañ ko war a teel a màggaale bu boobaa atte yi day yomb ci kanam ñiy atte mm-hmm. <coughs> mu ngoog kon buñ di jël dëgg di ko solal mbubbum neen buñ di jël neen encore di ko solal mbubbum dëgg loolu buñ koy def ab jullit du ko def ndax ak lor la boo xam ne ëllëg ma ngi lay xaar bu bis ba ñëwee da nga xam ne tooñoon nga sa morom ma ñaari yoon waaye ndeke sa bopp nga doon tooñ ngoog ndax buñ la gaaralaatee mbir ma naqar wa sa morom ma amoon keroog yow da ko am <laughs> mu ngoog yonent yàlla daawuda alayhi salaam suñ borom yeddoon na ko jàngeen saar wu ñuy tuddee Saad suñ borom dafa wax ne wahal ataaka nabaul xasmi id tasawaru lmixraab ba laayay jeex foofa dafa am ñu jékki-jékki rek tëb niir bi fekk si ko fi mu nekk di jaamu boromam moom yonent yàlla daawuda alayhi salaatu wassalaam bi mu tëbee miir bi ba wàcc sax xaw naa moom yonent yàlla daawuda xaw naa tiit ci ñooñu mu gis ñu ci tëkkiriki na cëpp ci kanamam ndax loolu mën na tiital nit bi mu ne gindeet xool leen ñu xam ne xaw naa tiit ñoom ñoo ne ko laata taxaf bu ragal bul tiit xasmaani ñii fi teew kan ñaari gaay yi la yuy xuloo xuloo la bagaa baaduna ala baadin xuloo bi nag ñenn ci ñun ñoo bëgg a beew ca kaw ña ca des xam nga ñoom li ñuy waxagum jaar na yoon dafa am ñenn ci ñun ñu tooñ ña ca des fahkum na bil xaq loolu it jaar na yoon attee ñu ci dëgg wala tustit bul jeng de hmm. gis nga yeneen yi salawaatullahi wa salaamu alayhim ajmain ñu amoonuk dal lañ mënoon na ne waaw nit nooy ñëwee ci moom di këlif en tant que fekk si këlifa naan ko nang ñu àttu ci dëgg yemut ca mu ne ko bul jeng ah ñaar yooyu ko fi taaj di waaw ñaar yooyu ñoo ko fi taaj àtte ci dëgg bañ jeng moo tax mu déglu wax ji bu baax góor sa tekke ne ko wahdina ila sawaai siraat ila sawaai siraat gindi ñu teg ñu ci yoon wi nga xam ne mooy wi jub ñu xam ki moom dëgg ak ki moom safaanul dëgg ah lii day moo fi taaj yonentu yàlla daawuda kon kii kat li muy wax dara jàddagut ci mu daal di commencé nag gaaral naan ko inna haza axi kii sama mbokk la lahu tisun wa tisuna naaja waliya naajatun waxida mu ne ko kii sama mbokk la dafa am juróom-ñeent fukki wëllu ak juróom-ñeenti wëllu man ma am benn wëllu mu bëgg a jël sama benn wëllu bi mottalee ko téeméeri wëllu juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent taala ak ak moom mu noot ma ci wax am dàq maa wax dégg nga waa ji wax de lii mu mujj wax nii am na ci loo xam ne jaru ko ndax moom mu ngi mu ngi wane ñaar ñi ñi toog naan kii dafa woomal dafa bërile man nag damaa néew doole ku ñàkk laa fakiir la loolu lu wut si cib àtte lu wut si cib àtte kon am na lu mu bëgg muy lan jëmbat sentiment wu ne man ku néew doole laa ku ñàkk laa ci xolub yontu yàlla daawuda alayhi salaatu wassalaam te kat lam doon wut am na ko mhm. wax lam am nam toll ak waa ji lim am lim toll andiwut leen fi ndax mbir mi waa ji am juróom-ñeent fukki gàtt ak juróom-ñeent ak mu ñàkk am dara ñoo yemoo mbir mi mbirum dëgg la ñuy soxla tey wata gis nga euh, sentimentalisé na ko daawuda ne ko laqad zalamaka tooñ na la bisu aali naajatika ci laaj jim la laaj sa wëllu wi ilaa ni aajihi bëgg koo boolee ki wëllum ndax mu ngi naan yow li nga am ni mu bëree juróom-ñeent fukk ak juróom bëgg a jël bennam tooñ na la mhm. kon gis nga dugal na ko lii la bëggoon mhm. mu ñàkk am dara warta jël aw wëllum mu am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent warta jël aw wëllum kon lam ko doon wax ci saasi rek mooy eh lam am laa la ko li nga am laajuma la ko man li ma soxla mooy lii leen jotale lan la dafa jël sama nag rek la mu door a laaj ci waa ji ne ko yow itam ndax yaa jëlu nagam bu weddee ne jëlu nagam ñu door leen wax dem leen ñu indi seede procédure bi loolu rek la laajoon hmm. waaye amaa tooñ na la nag ci jël saw yëkk boole kook ay yëkk maanaam jël saw wëllu boole kook ki wëllum loola moom yonent yàlla daawuda dugal nañ ko ca hmm. tekke sax ne wa inna kathira min al xulataa la yabgi baaduhum ala baadi kon waa ji moom waxagut atte nañ ko waxagut atte nañ ko bi maanaa tooñ na la te dégloogut kii loolu itam geneen gaawantu la bëgg koo jëli dugal ko ci majorité doom aadama yi ci ne lan ñi gën a bëri nii lañ mel buñ jaxasoog yow alal beew ci sa kaw kon gis nga waa ji non seulement tooñ na te moom waxagut de waaye dugal nañ ko ci kasiran min al xulataa la yabxi baaduhum ala baadi ñi gën a bëri nii lañ mel waaye nag mu tekkee na illa allazina amanu wa amilu salihat amanu wa amilu salihat tooñaange daal kenn rek ñenn rek ci mën a mucc muy ñan ñi nga xam ne dañoo gëm seen borom subhanahu wa taala te leer na leen ne lépp luñ fi wax mbaa jëf ko fii mbaa ñu jëflante ko fi bisa ngi ñëw ñu ñu ñooñu rekk nga mën a jëflanteel doo am lu naqari la ilaha illa dëgg ndeke kon àdduna buñ bëggee jëflante yi baax ñu ngi koy jaaree ci fan jëmbët al iman wal amalu saalix eh, fi qulubi nnaas jëmbat iman ak jëf ju baax ci xol doomu aadama yi bu boobaa jëflante yi baax allahu akbar mu teg ci nag ne wa qalilun maahum ak ñoo néew ñoo ñoo ñoo ko néew baax ñu ñëw ah kon ndeke àtteekat bi mën nañoo jenguloo ab xolam sentimentaliser ko ba tax koo jël position boo xam ne bokkut ak ba mu waroon jël donte sax ab yonentu gis nga yonentu yàlla daawud nii lañ ko naxee mu ngoog laa ilaha uh, yombut de bu ko defee nag fi nuy waxee ci wàllu atte suñu réew mi ci fan yii nu tollu ñu ngi toll ci wàllu atte fu critique fu critique am na ñaari xaleli activist ñaari xale li activiste mooy ñooñu nga xam ne soo leen déggee ñuy wax rek société bee leen tax di wax intérêt société bee leen tax di wax muy Abdul Karim Gueye xurum xaax ak beneen activiste bu ñuy tuddee Alhaji Diouf Assane Diouf Assane Diouf la tudd de Assane Diouf la ngeen baal ma ci Alhaji Diouf ci Assane juuf ñoom ñaar day nekkoon nañ fii ci weer wii paase weer yi passé di xeexal société bi déglu naa kenn ku nekk nag la mu wax ñoom ñëpp lañ doon wax ay wax yu jub la ay wax yu dëggu la lañ doon revendiquer pour société bi la waaye kenn ku nekk nag nee nañ ko fii ni fi waxee waroo koo waxee ndax danga xotti wormaay ki nga doon wax ci moom kayit ñu ne ko dangaa saaga te gis nga ñooña kenn kalaamewu leen de procureur de la république moo jël a man manam ak sañ-sañam ca saasa ne nañ leen dem jëli indi leen kenn ku nekk ñu foog ñu fekk ko ci barabam pamti pamtee ko indi ko ci kanam procureur àtte leen tëj ngir ne lan Assane Diouf moom yi dafa saaga saaga nag ñun fatuñ ko saaga moom ala kulli kenn kenn du ko farle kenn du ci farle kenn waaye nag lam doon wax moom lépp ak dëgg la saaga wa rekk day moo ca moo cay loo xam ne ñun dañ naan du dëgg sëñ Abdul Karim it lam doon wax moog si Assane me ñooyam kenn ku nekk lam doon xeexal societé bi ci dëgg la ko teg xanaa lam wax rek ne kilifa googa di commissaire ba dañ ko waroon a fekk ca biir génne ko futti ko jàpp naa ne xëy buñ koy condamné ca loola la loolaa que tuuti par rapport ak li benn kilifa gu mag ci réew mi wax fan yi moo tax ma ne ah, yàlla du juum procureur de la république yàllante woon mu déglu suñu tafsir bi tey président de la république yellante woon mu déglu suñu tafsir bi tey xalif généraux yi ci réew mi yellante woon ñu déglu suñu tafsir bi tey ndax kilifa googu nga xam ne dem na ba jiite lu rëy ci Afrique lu mel ni seen parlement ñu def ko fa kilifa ñu ne déetawaay mu nekkaat membre bu mag ci partie bi nga xam ne moo nekk au pouvoir muy Cissé Lo saaga saaga ya gën ñaaw ñaari moromam ci biir parti bi saaga ci ndey ya na ñaaw yaakaar naa ne Karim waxut ñemewut wax lu mel noonu te kat moom jàpp naa ne foofa mu doon saaga saaga ya xeexal askan wi taxut ko woon a jóg def na nag ay mënaas ne am na ay càcc yu mag yoo xam ne moom buñ ko fajalul soxlaam soose lam wax moom ñemewuñ caa jaar waaye saaga na saaga yu ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa Sénégal fii la toll actuellement bis ni tey ñu ngi déglu procureur de la république fi ne nii ñu ngi koy déglu moo tax yàlla kéemaan la de yàlla ku yéeme la waaye waaye procureur de la république gis nga balance booba ngay teg ca kaw ca kaw juge ba amul sentiment xamul kumba am ndey ak kumba amul ndey góorgóorlu nga mel noonu xale yee société bi lañ doon xeexal wax yu ñaaw yee lañ leen tëjee këlifaangoo ki seen biir wax na wax joo xam ne kenn mënu koo déglu ci noppam te ñam ko wax di ay naw lay këlifaam yori doom yori njaboot dem boo gisee ma ne na ci xalif généraux yi jóg mooy moom dafa tudd benn xalif général ne na déglu audio bi mu ngoog ah na ci président de la République jóg mooy dafa ne nañ ko ko tegal mu déglu ko moo ma ne Sénégal nag fi ne nii ñu ngi tollu ala shafa juruf te it lim tudd lim junj moom moomu scandale la scandale la boo xam ne bu fekkee lam wax noona la amee scandale la de moom it lam wax révélation yooyu mu def nan ko toppatoo nan ko nan ko nan ko nan ko toppatoo ñu bëri yàgg nañ ko fee wax ne lu am la moom nag tey wax na ko ne lu am la boole koo ki saagaam kon ñaari ñaari yëf la muy la lii mu wax ne lu am la procureur gaawal jóg ci saagaam yii gaawal nga jóg ci bu fekkee réew mi am na yoon bu fekkente ne réew mi kumba am ndey am kumba ñàkk ndey new fi mu ngoog loolu lañ doon wax ci wàllu googu suñ borom daal nee na fa amma man daal jaam bii nga xam ne saqulat diis na gann mawazinuhu ay peesem ci jëf yu baax ya fa huwa moom ëllëg fii iishatin aji nekk la ci dund raadiyatin dund boo xam ne aji gërëm la ah dund dana gërëm dund yarutum xel di yarul santiment di ci ñun liñ xam borom dund moo yorum xel moo yor santiment mooy kontaan ci mbir mbaa mu ñàkk kontaan ci mbir waaye du dundu beeg boppam même ñi xam ne dégguñu xàmmee wuñu waxi arab ak waxi diina yoo nee nañ laaya yi bokk na ci laaya yi nga xam ne war nañ koo xoolaat ndax arab bi ma ne ñooñu dañoo dégg arab te dégguñu làmmiñu diina dañoo fer mbindum waxu arab te feruñu ci mbindum asamaan ah kay dund day gërëm dund day yëg dund day wax euh, jàngu leen ci alquranul karim alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi lsamawati wa man fi l ardi walchamsu walqamaru walnujumu waljibalu walshajaru waddawaabu wa kathirun min annas wa kathirun xaqa alayhi aladab jànguñ loolu ah am itam beneen bu sax laay bëgg na gàtt te wax loolu yëpp muy lan wa in min cheyin illa yusabixu bi xamdi walakin laa tafqahuuna tasbixahum lumoo lumu mu ngi sàbbaal ñun ñoo mënta xam xob wee ak carba ak miir bi ni nuy sàbbaalee ak sunu yaram yi ni nuy sàbbaalee ñun ñoo ko mënta xam ak dund bi lépp ni muy sàbbaalee di kontaan jànguleen fama bakat alayhimu samaau wal ardu ahakay booba ci luñ doon wax mbirum benn yéefar bu mag jiiti woon lu yaatu ci àdduna yéefar bu rëy la woon ñu ko doon tuddee na moo gàngooram nga keroog ba leen géej ga wannee suñ borom nee na asamaan jooyut suuf jooyut ñu ne ah kon kay asamaan yéeg suuf yi da am nañ yëg-yëgu gis ne ah Firawna mii kat ku sàggan la woon moo tax duñ ko jooy duñ naqarlu ci mbiram waaye am nañ yëg-yëgu jaam bu fi doon dund nekkoon ku baax jaam ba dem ñu jooy ko kon nag fii iisatin raadiya dund day gërëm ndax dund bii su fekkente ne dañ koo jël jox ko ab jullit bu di ko dundee dund booba day kontaan ndax danaan jox nañ ma ku mérité waaye buñ ko joxee nag ku mel ni na du kontaan mhm. mu nga loolu mooy wax ji moo tax dund ba ci yowmal qiyaama ña dem aljanna suñ borom subhaanahu wa taala euh, jox leen fa dund ci biir aljanna dund booba day kontaan day kontaan ndax danaan ah ñii ñu ma jox de yeeyoo nañ ma ndax dundu bu aljanna ay xéewal la foofa dund ba day kontaan waaw yeeyoo nañ ma ndax ñii ñooy ña nekkoon ci kaw suuf Ah, nekkin wu suñu borom si wataala gërëm mhm. boppam raadiyatan day gërëm fi iisatin raadiya ci hadis boobu muy fama bakat alayhim alsamaau wal ardu wa ma kaanu mundarin askanee nañ ci benn wax ali ibnu abi talib radiallahu anhu jàng ci moom laaya bi muy fama bakat alayhim alsamaau wal ardu ña ko waroon ne ko waaw atab ci samawatu wal ard asamaan ak suuf dañuy jooy mooy naam tabki wa tafraxu wa dañuy jooy waaye dañuy bég dañuy ree sax hmm. mu ndax comme asamaan ak suuf jooyu firaw na rek sofaan ba ma fuuma mooy lan asamaan ak suuf bég nañ ci faatum akak ak alakum waaye ñu jëlaat ko ci beneen maana comme jooyuñ firawna rek asamaan ak suuf dañuy jooy sofaani firawna ya muy nit ñu baax ña njénne àdduna asamaan suuf dañuy jooy moo tax ali abi talib boobu radiallahu taala anhu wax na ne ida maata al abdu salih baka alayhi musallahu min al wa mas'adu amalihi fi lsama mu ne jullit bi jaam bu baax bi bu faatoo barab yam daan di julli barab yam daan toog di julli dañ koy jooy buntu yi nga xam ne it ci la jëfam yu baax yi daan jaar di yéeg buntu yooyu nee na buntu yooyu dañ koy jooy ndax dañuy xëy xëy rek gis ne jëf yi jaam bu baax bi fi daan jaar kat jaaru fi tey suñu laajtee ñu ne jaam boobu dafa génn àdduna ba tax dañuy jooy lu waral loolu ñu ne ndax li ngeen di gis nii lépp ci seen bët asamaan yeeg suuf yeeg garab yeeg lépp ci lislaam la ñuy dox lislaam mooy lan soumission totale maanaam topp gu mat sëkk ndigal ndigalul borom bi tabaraka wa ndax lépp lu fi nekk rek mu ngi wër ci benn système boo xam ne suñ borom moo ko fa teg muy wër di sabal kon ñoom ñëpp ci ndigal lañuy dox jant bi dox ci ndigal suuf yi asamaan si biddiw yi weer yi garab yi yaram yi doomu aadama yi xar yi njanaaw yi lépp ci lu ñuy dox lislaam ñu ne ah kon al islaamu diinul jamaadaati wa diinul uqalaa'i wa diinul nabaataati wa diinul bahaa'imi wal xayawaanaat ndeke kon lépp ci gàttal seen diina lislaam la waaw lépp rek lépp moo tax nag ñoom ñuy dund lislaam muy asamaan yeeg suuf yi jaam bi bokk ak ñoom lislaam dañ koy sopp waaw dañ koy sopp laa ndeysaan baax nañu jàll ñu mën a jeexal saar dañ koy sopp moo tax bu bu ñuy faatu rek ñu jooy dañ koy sopp ci dëkk moom dañ koy soppaat ci nekk wërsëg wuñ leen di wërsëgal gaa yooyu moo tax dund ba ca na ñu wërsëgal ko gaa yooyu day bu dund ba day kontaan fi isatin raadiya kon boobaa jarul ñu naan raadiyatin ismul fail la bi maana ismil mafuul ñu naan raadiyatin bi maana mardiya jaru ko ku dégg alquran moom xam na ne raadiya fi ñu ko teg mooy palaaso am mhm. mu ngoog fi yasatin raadiya dund bu gërëm bu kontaan ca ñañ ko jox seeni waram mu ne nag waa maaman daal ña nga ne xafat woyof na mawazinuhu balance yi maanaam peese yi jëfam yu baax jëfam yu baax ya dañ koo peese mu woyof mu ne ñooñu fa ummuhu kooku ku mel noonu fa ummuhu yaayam ummu mooy firi yaay yaayam hawiyatun aw sawara la hawiya nag li arab xamoon lugatan lugatan mooy firi kàmb kàmb hawiya kàmb rek lay firi moo tax suñ ne ummuhu yaay ja hawiyatun ak kàmb la alquran dana ñëwaat ne waxaat defaat la mu defoon fële laaj la laajub tahwil et wa taajiz pour wan la ne lii ñu lay laaj mënoo koo xam faaw sa borom xamal la ko nga door ko xam moo tax mu ne wama ma adraka ma lu la xamal bu nga firee ko noonu ma lu la xamal bu nekk ne mu mag adraka xamal na la maa hiya kàmb googu mooy lan bokkul ak kàmb yi ngeen xamoon de waaye kàmb gi di hawiya naarun aw sawara la wu di aji jéggi dayoo ci tàngoor ba ñuul kukk dafa tàng di tàng ba mujj ñuul hawiya ndax daan na firi loolu luxatan déedéet kon lii mustalax min al mustalahaati diiniyati l islamiyati moom lañ waxoon ca wa ma adraka mal qaariya qaariya lañ ca xamoon rek mooy yuuxu gu ñëw fëgg mbir maanaam ak fëgg wala yu demee noonu bur wi waaye xamuñ ca woon nag ñu naan ab bis la boo xam ni yii yëpp ca lay xew ngoo gisu ko mm-hmm. moo tax mu ne woo ma adraka ma hiya ma lu la xamal loolu mooy la gis nga as boo ko dàqee nii wala mu tiit gisul lu xam bu dawee yaay ja jege fa wala baay ja day ñëw rek laxasu ko làqu ci ci fu yaay jege dañoo làqatu ko laxasu ci kawam bu ne langam ci kawam nag day jàpp ne mucc na waaw lay san ñooy sawara it bu ñu leen sànnee ci biir sawara dañuy daw wut fu ñu làqatu duñ gis fenn fu dul sawara fuñ ca jafandu foog foog ne foofaay mucc waay ba rek fekk foofaay musiba ni nga gisee gune di daw di làqatu di langaamu ci yaay ja ñoom it noonu la ñuy dawee ci biir jahannama di daw di làqatu ndeysaan di langaamu ci ay barab ci biir jahannama waaye fuñ fuñ fuñ fuñ jafarandu foofu gis nga fii tam ab dund fi ne dund bi mooy dund euh, jahannama yal nañ ci yàlla musal jahannama it day am satisfaction day kontaan day kontaan ca ñeñ fa def ndax moom it suñ borom da koo bind mu nekk benn xeetu dund boo xam ne mbégteem lépp mooy lan nañ ko indil ab yéefar nañ ko indil ku weddi yàlla subhanahu wa nañ ko indil koo xam ne dafa weddi woon moom la lam gëmoon ndax sawara du lakk xamut luy lakk ñañ fay def ñooy lakk kon sawara moom jëmmu la joo xam ne noonu la ko yàlla bindee moom du lakk waaye nag day kontaan ci ñu indil ko ñoo xam ne dañoo lànkaloon yàlla subhanahu wa taala walaay lu tax nag ñu jël hawiya muy kàmb googu tuddee ko ummu yaay ibnu zayid daf ne alhawiyatu annaaru hiya ummuhu wa mawaahu allati yarjiu ilayha wa yawi ilayha mu ko firee noon nag wa qaraa mu daal di jàng laaye bii ne wa mawaahumu naar nañ ci yàlla musal nañ ci yàlla musal kon sawara woo na boo gisee ñu ne xaamiyatun dafa dem ba ñuul noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee nee na sawaraaw alaxira fuddilat ala naari dunya bi tisaatin wa sittina juz'an kulluhunna mislu xarriha yal nañ ci yàlla musal nee na sawaraaw am na sax bu wax sabiina juz'an ñu ne kon su boobaa dañ caa dindi benn partie bi nga xam ne mooy sawaraaw àdduna bi sawaraaw àdduna nga xool ni mu tàngee ñu ne benn partie la boo xam ne am na juróom ñeen fukki partie astafirullah juróom Euh, euh, benn fukki parti ak juróom-ñeent juróom benn fukki parti ak juróom-ñeent maanaam juróom benn fukki xaaj ak juróom-ñeent yoo xam ne dangay jël benn àdduna bi boole ko ca mu mat juróom-ñaar fukk benn bu nekk nag ca juróom benn fukk yaa juróom-ñeent yor na tàngoor wu toll ni tàngooru àdduna bi kon sawara woowa gën naa tàngee sawara wi ñaata degré juróom benn fukki degré ak juróom ñeent xadis bi ñuy bëgg a wax abu hurayra moo ko solo radiallahu taala anhu mu ne yonent bi nee na wuqida ala naari alfu sana xatta xmarrat sawara dañ ko taal mu takk junni at ba mu juqoon ko coy summa uqidu alayha alfa sana hatta ñu taalaat ko junni at mu tàkk ba wex tàll summa uqida alayha alfa sana hatta ñu taalaat ko junni at ba mujj ñul kukk fa hiya sawdaau mudlima nee na nag tey ci melokaanu ñetteel woowu muy xaamiya aji jot la dayo ci ñuulaay ngir tàngoor naarul xaamiya yàlla nañ ci àlla kon mbokk yi lii de ma nga fa ñaara nga àllaaxira muy lii ñu mujj a tudd nii ak liñ njëkkoon a tudd muy aljanna ñoom ñaar ñooñu nag ñun ñëpp sunuy xëy ak sunuy ngont ak sunuy waxak ak sunuy jëf ak sunuy melokaan faw mu ñibbi ci kenn ja ci ñaari kër yooyu suñ lépp nag luñ wax rek luñ jëf rekk nuñ mel rekk waaw moo tax nañ bàyyi xel loolu faw mu bokk ci kenn ci ñaari kër yi melokaanu aljanna melokaanu sawara colkaal aljanna colkaal sawara jëfi al aljanna jëfi sawara waxi aljanna waxi sawaraa jëflanteeb aljanna jëflanteeb sawara ki am xel na xam ne ñaari kër yi ñu ngi koy xëccoo de fa muy demee nag ba xam ne gañe na dundam mooy lañ doon do wala asri na sa fa xus gañe na dundam mooy fam demee nag bañ ne ko saqulat mawazinuhu fa huwa fi isati radiya fa muy xamee ne perte na mooy fam demee bañ ne ko xafat mawasinuhu moom kat jëf yu bon yaa not melokaan yu bon yaa not yàlla nañ ci yàlla musal eh, yàlla nañu yàlla boole min ahlil qur'aanil karim ahlillahi wa xaasatihi incha allah foofu la ñuy yemale saar wi bu beneen yoone ñu dem ci beneen saar muy suratul aadiyaat bismillahi tabaraka wa taala allahumma salli wa sallim wa barik warham ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Aztec American Technology ànd ak distributeur agréé bii nga xam ni moom moo di Aven Electronics waaw DJ Boubs ñëw fii ci Louga ak li ko wër indi leen promotion spéciale ci seen produit yëpp mës nga gis lii ci produit Aztec yëpp waaw suñu Smart TV curve dernière génération ngeen mën a seetaan série yi nga xam ni moom moo nekk ci YouTube yëpp DJ Boubs établissement Mbargu Seyna bu loo nekk ci garage ñoom rek jàkkaarloog juma Maam Malick Seck Sall ñëw leen xool Aztec la ñu indi tàmbali ko ci 24 pouces 32 pouces 43 50 ba 55 pouces lii ëpp na waay ci ay njëg yoo xam ni nag établissement Mbargu Seynabou Lo nekk fi nga xamante ni mooy garage Ñomre jàkkaarloog juma Maam Malick Sall nekk fii ci Louga foofu rek ngeen ko mën a amee seen numéro téléphone nekk 77 424 68 41 ñu ngi leen fay xaare ak ay xéewal yi jàppandi ku dolli cere yokku ñeex Aztec indi na leen ay mixeur yu xarañ ay split dernière génération tamit indi nañ ko Aztec technologie indil na leen ay ventilateur yu ànd ndoog télécommande ay chauffe-eau ngir sangu te seddaay bi du la indil benn problème ci ay njëkk yu yomb ak Aztec technologie mën ngeen installer seen kër chauffe-eau cuisinière Aztec quatre feux cinq feux yu ànd ak tourne brochette ñaw Aztec ñëw na ba nopp indi ay micro-ondes yu rafet ay congélateur yoo xam ni loo ci dugal mu congelé gaaw gaaw gaaw ba noppi durée de vie bi jàkkaarloog juma maam Malick Sall woo ñu 77 424 68 41 DJ Boubs Aztec Live Tell the Future TV